asalaamaaleykum ñu ngi nuyu téléspectateurs yi MK yëpp ak ñi ñu lëkkalool euh, Abdou Lahad Bousso Thierno di bokk ci daayira Moukhaddamatoul Khidma nekk ci commission organisation euh, bokk ci su ci coordonnateur yi nga xam ne ñooy coordonné cérémonie officielle bi. tey ji nag ni ngeen xamee daayira Moukhaddamatoul Khidma ak liggéeyam ci biir màggal gi cérémonie officielle da cee bokk muy ponk bu ama am solo ci màggal gi nga xam ne tey. li ñu doon wax lépp ak ñi nga xam ne ñooy invité yi nekkoon ci màggal gi yëpp fii la ñu daje tey muy délégation officielle bi muy ministre de l'intérieur ak ñim àndal délégation religieuse yi mboolem këri diine yi invité yi réew yi ñu invité lu mat ñaar fukki réew ak nangam ñi ngi fi ak corps diplomate bi mat quatre-vingts ak quatre vingt danañ fi teew ak délégation étranger ak naari Mauritanie yi ñoom ñëpp ñi ngi fi loolu nag ci organisation bu metti la laaj boo xam ne laaj na temps waaye liñ ci war a def lépp def nañ ñu mën cee dolli presse presse bi te loolu kon boo dee xool su fekkee ne bâche bi mën naa jël benn nombre boo xam ne 600 lay doon kon da nga limité ñëpp loolu mooy tax soo dee xool limitation bi day aju ci fépp mu laaj euh, organisation bu jaar yoon te waaye nag kenn ku ne xam na euh, daayira Muxaddamatul Xidma ak seenu mën a nos ak seenu mën a organiser jàpp nañ ne incha allah xëy na lépp dana jaar yoon euh, ci kanam li ñuy xaar tamit mooy ci biir kàddu yi. jàpp naa ne cérémonie bi ñaari kàddu lay doon muy kaddu euh, ministre bi ak kaddu Serigne Bass gi koy jiitu mooy présenté délégation yi loolu dana am. kon loolu lañ bëggoon a tënk ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def fii ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.